alors mu ngi noonu donc euh, en direct fi nga xamante ne ni moom mooy ci SICAD ah, ah, ngir daal di leen di dégtal lépp lu jëm ci assise euh, nationale jëm ci wàllu yoon donc yoon ngeen xam ne euh, tey jii nii dinañu dinañu mën a waxtaanee ci wàllu ah ah d'accord d'accord mu ngi noonu donc ci kanam tuuti incha allah on aura l'occasion non non bàyyi allah. dañuy dañuy dañuy dañuy daal di nekk ci waxtaan wi fii ci sikat xam naa ne fii ñu nekk nii moom mooy fi nga xam te ne nii moom mooy ci bunt bi véritablement pour jox leen euh, ay euh, ay interview yoo xam. alors. ngeen baal ñu nag tey ci dog-dog yi <laughs> donc mu ngi noonu daal en tout cas tey jii nii ñu fas yéene leen a jox lépp lu jëm ci travaux yi ak euh, jëm ci wàllu euh, anam gi ñuy euh, tegee mbir yi tey ji à partir de 11 trente xam naa ne suba incha allah vous aurez la réaction incha allah de certains cadres et leaders. alors je vois le directeur général de la RTS actuellement euh, s'il vous ah ouais <laughs> ça vous allez bien en direct euh, à, à la journée s'il vous une journée importante parce que c'est le premier acte qui vient d'être posé je pense que tous les Sénégalais sont con, euh, très intéressés par une réforme de la justice après tout ce que nous avons vécu. Et je pense qu'on a entamé plusieurs réformes qui n'ont pas abouti. Et aujourd'hui, il urge que cette séquence de folie qu'on a vécue de 2021 à 2024 ne se reproduise plus et qu'on respecte les droits humains, qu'on respecte l'indépendance de la justice. Je pense que nous allons aboutir à cela à travers ces réformes. merci mu ngi noonu c'est le directeur général de la RTS Papa Alé Niang donc yëkkati ay kàddu yu am solo ah, ci ci ci li muy xaarandi ah, ci attente yi Clédor euh, Clédor Sène maa ngi koy gis léegi mu ngi may omb c'est pas c'est par là c'est par là donc euh, ñu ngi fi nga xamante ne nii euh, fii la gars yi di duggee donc euh, ñu jëm leen a jox quelque réactions avant même lu démarrage véritablement de de la cérémonie alors actuellement ñu ngi fi nga xamante ne nii moom moo ci Sicap Papa Alenia ngeen ko muy waxe ay attentes muy xaar di wax ne rek lépp loo xamante ne nii réforme la buñ ci nekkee nañ ko jëmmal su ko defee day nekk loo xamante ne nii. Euh, donc li fi xewoon dootu fi xewati euh, donc mu ngi noonu en direct avec euh, des des confrères et consoeurs de de la de de la presse donc mu ngi noonu may gis yenn ci ay ay ay ay kilifa yuy ñëw donc mais lépp lépp rek tey jii ci kanam tuuti incha allah xam naa ne dinañu dinañu dinañu waaw waaw ñu mu ngi noonu en tout cas actuellement je vois monsieur Mbodj monsieur Mbodj monsieur Mbodj s'il vous plaît euh, donc euh, mooy coordonnateur euh, donc plateforme euh, bi f mu ngi noonu mu ngi nii actuellement avec nous euh, monsieur Mbodj tey jii lan mooy say attente par rapport à cette journée. mais suñu attente mooy effectivement que li ñu yëkkati mooy jubbanti def ba nga xam ne xewoon at yi passé mooy jàpp nit te teguloo ko fenn tëj nit ñi lu yàgg yàgg teguloo ko fen mu jóge fi. donc mooy ñu def justice bi mu ànd collaborer en tout cas ak askan wi mu nekk à la dimension des attentes de la population sénégalaise donc loolu yaakaar nañ ne war nañ ko mën am muy ci lu gaaw maintenant li des mooy système bi yëpp dañu war a dijjanti parce que fekkee nañ bi nañ ne dañu contre système bi système bi yëpp dañoo dijjanti donc loolu moom defe naa ne liggéey bu gën a yàgg lay doon bu gën a am solo mais fii moom xëy na dañu am ay réformes yoo xam ne tax ñu xaw a jubbanti affaire yi mais buñ ko bëggee jubbanti dëgg il faut ñu dijjati dijjati. waaw waaw waaw parce que li xew moom dafa dafa doy waar. parce que li fi xew ñetti at yu mujj yi vraiment ëpp na dayoo. moo tax euh, lii war a am waxtaan bi pour que ñu xool naka lañ koy euh, defaree ba nga xam ne duñ fi amati président boo xam ne mooy buur di bu mi mm-hmm. duñ fi amati procureur boo xam ne day joxo nit jàpp ko ne jàpp leen ko jàpp ko tëj leen ko ñu tëj ko bu buñ liberté provisoire mu bañ loolu dootu fi am donc au moins loolu buñ ko réglé xëy na dañ am benn pas ci kanam en avant merci mu ngi moonu Mamadou Mbodj moom mooy coordonnateur u F24 doon àddu jëm ci euh, lépp lu nekk ay attente rek ci mu koy xaarandi euh, ci bésub euh, tay bii di assises yi nga xam moom mooy yu yu justice yi donc tey ji nii la dinañu essayer def de tem kàttan pour pour pour jox leen le meilleur de l'actualité avant même lu démarrage véritablement euh, de la journée donc première journée bu assisi fii ci euh, Sicap ci Sicap Diamniadio donc euh, mu ngi noonu ah, ñu ñuy wax nañu ci programme bi maa ngi ko doon wax sànq discours bi bi njëkk moom mooy bu professeur Babacar Gueye moom mi ñu tabb mu nekk facilitateur bu waxtaan wi waaye bi ci noppee daa jox parole bi ki nga xam te ne ni moom mooy le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye après loolu nag ñu daal di benn pause ah, laataa ñuy dem nag euh, ñëw ngir euh, daal di fexe def euh, reprendre travaux yi ngir waxtaanee installation yeeg commission yi ñuy tek Euh, jëm ci wàllu réforme ak modernisation justice maanaam thème bi ngeen xam ko mooy réforme et modernisation de la justice euh, tey ci première journée waxtaan wi waxtaan wi nag euh, noonu ngeen ko gisee mooy programme bi moom laa leen di wax terme yi TDR bi gis nga jox nañu ko ñi nga xam te ne ni ñoom ñooy taskatu xibaar yi commission la ñuy daal di teg ay commission yoo xam te ne nii boole ceeg yeneen ci ay sous commission donc loolu tey bëccëg bu njëkk bi looloo koy fas yéene marqué donc thématique yi day jëm ci wàllu réforme ak modernisation bu système judiciaire bi defe naa ne noonu la ci gàttal euh, li nga xamante ne ni moom mooy euh, tey jii nu mu fas yéenee demee ci ci ci bëccëg bu njëkk bu jëm ci wàllu assise euh, nationale yi ci wàllu ci wàllu ci wàllu justice alors mu ngi noonu fii ngeen di gis nag mooy fi nga xamante ne ni fii la kilifa yi di di di di aw donc ñu jéem a def de telle sorte que jox leen ngeen dund ko avec des interviews yu ngeen mën a am ci ci wàllu ñii di ay participants yi participants yi véritablement dina ci bokk ay association de presse ay association yu ëmb wàllu yoon ay ay ay ay ay ay ay ay ay taskatu xibaar ay ay ay ay véritablement professeur universitaire Euh, ñëpp daal couche yëpp yu ci bëri yoo xamante ne ni mbir mi euh,